moo tax góor yàlla yu bëri woote nañ faydu boobu ku si mel ni Cheikh Omar Fouti Tall Ahmad ibnu Mahmad Alawi bés daf ko laaj mu ne ko Cheikh Omar hal atat haadihi alfaydatu wa naas fi gaayati ma yakunuuna alayhi min addiqi wa shiddati hal atat haadihi alfaydu am hiya baaqi mu ne ko ndax faydu boobu Cheikhu Tidiane junjoon yow Cheikh Omar ndax faydu boobu dafa feeñ ci yow ndax li jiitu muy taaj moom daan na taaj lu ëpp juróomu téeméeru ndab këram ndab lu nekk lu mat juróom benn nit danañ ci taw kon kooku bëri woon na mbooloo nga dégg nag Cheikh Omar lim tontu ci jawaab mu ne ko wa amal faydatu farju fa arju min allahi ilaykum an yakunu muraad biha anna al abdu al faqiru wal imaamu alfatima radiallahu anhu Cheikh Omar ne ko naka faydu boobu Cheikh Tidiane jot maa ngi jot ci yàlla man jàmm bii la bi nga xam ne man maa jiite waa bani fatima yëpp ay mbiram di dox muy dem waaye gis na ne mbooleem ñi ko topp ay nit ñu ñuul kese la te Cheikh Tidiane yi waxoon ne ne borom faydu boobu bu ñëwee fu ne leen nit ñi di bàbbeeku afwaajan ay nit ñu ñuul nit ñi xonq nit ñi weex mboolem xeeti xeeti Cheikhu Tidiane waxoon na ne borom faydu bu ñëwee dana lëkkale alam bi ci ay xeeti xeeti wute loolu tax Cheikh Omar xam ne li ko dikkal majaasa la waaye duwul borom faydu loolu di dem di dem ba ci ku ñuy wax Seydou Mouhamad Hafiz moom it woote woon na faydu bi nga xam ne moom Cheikh na Amara Tidiane moom moo ko ijaasal jox ko itlaax ne ko boo demee Mauritanie na nga nëbb sa bopp ba yàlla feeñal la noonu la nekkee foofu ci moritani moom Mouhamad Hafiz ab diir si la am bés benn góor yàlla ñëw ci moom ne ko sëriñ bi nga jëlee Faas moom laa bëgg nga jox ma mu yëkkati ay kaala ak ay kurus di ko ko jox ngir rek bëgg nëbb boppam mu ne ko dawul lii lañ ma won mais mbóot biñ ñu la jox ne leen ko nëbb ba yàlla feeñal la loolu laa jël si ci la ko Mouhamad Xaafis doog a jox faydu bi maanaam doog jox tarixa bi tarixa bi booy xool foofu la jaaree ci Mauritanie ba ci ki nga xam ne mooy Cerno na Karim Naqib Diallo moom mooy ki dugal tarixa bi fii ci Sénégal mu nekk waliyu yàlla boo xam ne bu kawe martaba si àll bi rek la doon la nekk di jaamu yàlla di xeeñ ci bootam nuuru jasor baani benn bés moom Cerno na Karim Naqi si la dajeeg benn soxna soo xam ne moom it ku yàlla xamal xayb mu ne ko li ngay sàkku doo ko am mukk lu dul da dem ci Mauritanie da nga ko fekk benn góor yàlla bu nekk ca Tumba Tumba Yaali moo ngi tudd Mawlum Fall li ngay sàkku foofu rek nga ko mën a amee noonu ci la Cerno na Karim Naaxim laxas topp Mandeng ni di dox di dox ba ak Mauritanie ci la laajte dëkk boobu di Tumba Yaale ñu won ko Mawlud Fall mu ne ko man kat dañ ma tegtal ci yow ngir xamal nañ ma ne li may sàkku ci yow rek ci laa ko mën a amee te moom mooy mbootuf tarixa bii nga xam ne jaami yàlla ci lañ doon jàpp di xàgg ci yàlla Mawlud Fall ne ko di fi nekk fukki at ak ñaar boo bëggee làq sama gërmaande si la fa nekk di ko sàmmal di ko bëyal di ko defal mboolem lu taalibe di xitmal sëriñam ba ci fukki at yi ak ñaar yooyu ba matee ci la ko ijaazaal yewi ko mu dem Mawlud Fall moo ijaazaal bi nga xam ne mooy Cerno Abdou Karim Naqib bi nga xamee ne yewi na ko mu war a delluwaat ci Guinée mu ne faw mu jaar Sénégal ndax amoon na ay mbokk yoo xam ne ñoo ngi nekk ci Podor ngir mu gisante ak ñoom laata muy dellu guddi googu noonu mu war a ci Podor Mouhamed Amé Ba moom moo doon jàngal Cheikh Omar Fouti Tall guddi googu amee gént mbóot mu kawe dikkal leen waaye ñoo ngi ko séddale mbóot bi ñoom ñaar mook Cheikh Omar Fouti bi Cheikh Omar Fouti jàngee seen mu ne ko tey bul ñibbi ndax yàlla xamal ne ma ne am na mbóot moo xam ne war na wàcc si ñun tey te ñun ñaar ñoo koy bokkoo bul ñibbi toogal nga xaar loolu lan la bët set ci la Cerno Abdou Karim Naqim xaq si nga xam ne ñoom bu ñuy dugg ci dëkk dañuy jaar ci jàngalekat yi wala ci imaamu dëkk bi ci la ñëw directement si amee ba moom nga xam ne jàngalekat bu mag la woon bu ñu ràññee foofu ci Podor noonu ci la saafante ak ñoom ñu dalal ko ci ganale googu mu fa nekk ci la leen xamal nag làq na gënti ngëneel te képp ko jot jàpp mbooleem texe àdduna ak àllaaxira am nga te mooy tarixa tijaan yi bi mu layanteeg biir ñoom ci ngëneelu tarixa bi ci la leen jox tarixa bi moo Cheikh Omar Fouti ak amee ñu jàpp tarixa bi waaye yamu si daf leen ijaasaan ndax am na góor yàlla yoo xam boo leen gisee si semaine rek war ngeen mën war nga mën leen a jox leen ndigal ndax yàlla daf leen di boole si sàppay awliya yi amee bi mu leen xoolee moom moom Cerno Abdou Karim Naqin bi mu gisee Cheikh Omar Fouti ak amee ba xam ne ñii ay wallu yàlla yoo xamante ne yàgg nañoo xeeñ ci mbóot mi ci la leen jox dégg nga tarixa bi waaye jox leen ijaaza moom amee ba moom moom moo jox tariqa bi ki nga xam ne mooy doomam Mouhamed Amé Mouhamed Amé jox ko am nañ Ngoné Ndar Seck si cene ba Ibrahima dégg nga ba ci Ibrahima Diallo ñooñu nag ñoom ñoo jox tariqa bi El Hadj Abdoulaye Niass mi nga xam ne moom it oote woon na faydu bi ci jamonoom waaye bi mu demee ba ab diir ñu xamal ko ne lii ngay oote di wulal borom daa waxoon nañ ne borom faydu bi bu ñëwee fanweeri at lay am te yow say at ëpp na fanweer bi nga xamee ne nag bëgg na am ijaaza itlaax buñ boyal nga xam ne kenn du ko tënk moom alaaji Abdoulaye bokkoon na si nisër yi bu demee ziyaare ci Cheikhu Tidiane mu am ci parcours ci Cheikhu Tidiane am ci karawam waaye Cheikhu Tidiane xamal ko borom faydu ci kan la war a wàcc bi mu demee Faas lëmbe bi yëpp yàlla defal na ko xalifa ba fa nekkoon muy xalifa ci Ahmada Tidiane jox na ko mbébét yam bëggoon ne ko bëggoon nga soo ñëwee Fass am ci parcours Seexu Tijaani si la ko yëkkati per bi jox ko jox ko karaw Seexu Tijaani mu ne ko sa beneen mbébét bi nag demal ci zaawiya bi nga def tawasuul yàlla dana la xamal li ngay sàkku kan moo ko amee di nekkee ci xabra bi di ñaan ba nga xamee ne for for na bët ci nelawam yooyu ci la gént nag doomam jooju du Cheikh al El Hadj Ibrahima Niass ci atu fukki yooyu mu toog ci kaw xabru Cheikh Ahmad Tidiane bi si la jóg sant yàlla xam na lim doon ñaan dëgg-dëgg yàlla feeñal na ko si njabootam kon moom itam woote na faydi bi Mouhamad Hafiz lan la daan wax rëb an na ni ana lazi qad zahara min ula qad istafar wa saahibul faydatu axiru zaman wa faaiqu rijaali fi ilmi alquran wa afradani fi salaasina sanna wa bii alquluub bi min alsanna ila axiru nasmihi kon dëgg-dëgg faydu boobu nii lay toppante ba ci Mouhamed Ould Hadj moom itam daan na woote faydu bi bi mu demee ba jëmmi jamono ci la xam ne li muy woote woo du moom ci la nag laxas di dugg dëkk ba ñëw fii si Sénégal ñëw kër El Hadj Abdoulaye Niass moom benn cax la amee woon cax boobu mu ne képp ku ko tekki rek amul sikki na yaay borom faydu boobu cax dal la mu ne mooy si sifataani ñaari melo xadimataani xaqiqa lañ sosuwuñ xaadisataani mu ne boo leen seetee dañoo sos mbindeef lañ te mazruma mu ne seen mazhar bi bii mooy dunia wal axira ak alaxira lii la yoroon muy cax bi kër diine bu mu dem laaj la ko doo ko mën a tekki bi mu ñëwee kër maa alaaji Abdoulaye Niass mu ne ko kii lii ngay laaj de Ibra moom bu ñëwee dana la ko tekki bi baay ñëwee mu ne ko sifataani mooy nubu ak wilaaya kenn ku nekk si ñoom boo xoolee am nañ ëzël boo jëlee nubu ak wilaaya delloo leen seen ësël xaqiqa la ñuy doon waaye bañ dikkee si alamu zuhur bi ci lañ nekk ay mindeef Muhammad Ould Hadj su ko ay bëtu oomam jaayanteeg moom ne ko amul sikki yow yaay borom faydu aaxiru zaman kon dëgg-dëgg kenn du Mawlana Cheikh Ibrahim ñu wax jërëjëf Baye Niass nañ xam ne Baye dara tax koo jóg lu dul wal ummati xasti fahum an asuuquhum ila qadrati bahrirahim ilahina sama mission mooy ma jël xeeti yonent bi sallallahu alayhi ñoom ñëpp xàggal leen ci yàlla ndax loolu moom mooy li tax fay di ñëw kon senegal alquran saar ba mu doon junj dëgg-dëgg borom saar bu ñëw na te moom mooy iza jaa nasrullahi wal fathu wa raayta naas yadxuluuna fii diinillaahi afwaajan bu nit ma leen yàlla ñëwee mu ne fat ku ñëw muy ibbeeku da nga gis nit ñi di dugg ci diine yàlla ji ay mbooloo yu mbooloo moo tax boo jëlee faydu jël allahu jaamio da ngay gis ne cent quatre la allahu jaamio dëgg-dëgg amul sikkine moom mooy baay te moom mooy ki nga xam ne moom mooy ki dajale mboolem adduna bi wa siri sarafil xaafeqay nii wa xukumat siyuqun alaw ata yaqula jaridu bàyyi ne sama mboot mi rañaan na aw ak sow mu ne mboolem sëriñ yi gën a mag ñoom ñëpp jaas jaasir nañ kenn dootul am ndigalal fop nit ngir mu am fatul akbar bunt boobu moom tëj nañ la aarifi ilaa bi baa bi waaqifu ci benn bunt rek ci la jaam yi di amee dégg nga fatul akbar te bunt boobu nag dëgg-dëgg moo Cheikh Ibrahim moo ñu ko tiggil kon ñu wax jërëjëf moo Cheikh Ibrahim jërëjëf Baye jërëjëf Baye duñ ko mën a guddal ndax guddi na euh, di gërëm bàyyi moo diggee bu baax wax dëgg yàlla nit la koo xam ne wa huwa cheikhi jamihil marati bi sëriñ la boo xam ne mboolem ay marati boo ko xoolee di nga xam ne moo daje ci moom la Baye waxoon ne sëriñ noonu lay mel jikko yooyu yëpp gis nañ ko si Baye moo liggéey wat lu mu rabbiyan xabiran naasian kaamila irfanin imaman saliha maliku nafsaka fala tabdilu sëriñ la boo xam ne borom xam-xam la ñu bëri nag bu buñ ne borom xam-xam mooy ku jàng baqara ba naas jàng mboolem téere fiq baax na waaye xam-xam si dënn góor yàlla yi foofu la nekk xam-xam si dënn la nekk te mbóot moomu nag muy mbóotum hikma loolu la bàyyi moodu dégg nga amee ba tax taalibe bi mel nii ba tax mu branché ko mbooleem ay soppeem ci yàlla Nuqmaan Nuqmaan ndax jàng mu rëy ci la ko yàlla joxe mu téye jamonoom lan la téye woon jamonoom moom Nuqmaan mooy xam-xamu hikma bi nga xam ne mu ngi ko amee si fu mu gis Muhammad Rasulullah mu màggal ko ba bés mu gis kayit buñ bind sallallahu alayhi wa sallam mu jël kayit boobu lekk ko ci la ko yàlla éggee ci xamu xam-xamu xikma mbóot mi jafe na woon de tey bàyyi moo liggéey ànd ak jëmm ju mel ni Baye Ousmane Dieng di góor yàlla boo xam ne kenn laam-laanu wilaayam kooku tey moo ko defar ba képp xool moom bàyyi moo liggéey nga defar ndax bi ko sëriñ bi joxee ijaaza itlaax ne ko demal nga nekkal ma Dakar dëgg-dëgg nekkin boobu ku ne xam ne ne résultat bu mag a mag moom la feeñal fii ci Dakar ndax tey xadara boo dem danga gis tey ay jeexantalu Baye Modou nekk foofu ku jub la ku dëggu la ku bëgg sëriñam la ku laabiir la ku oyof la dëgg-dëgg li mooy sëriñ jàng ton téere wala tonu xadis te amoo jikko ju rafet amoo oyof amoo laabiir du mën a jëriñ kenn jamono ju nekk jaamu yàlla yi dañ lay moytu di ragal Baye Modou nag moom jàng na sëriñam ba mu mokkal ko moo tax mu mën nekk mbootu Baye Ousmane kon mbokku taalibe yi mbir yi rek la jàng nag baax na waaye nag ki jàngul tamit bu mu tax ngeen foog ne bokkul ci gaaya